ni naa ko danoo yem rek tubarikala ci di na nice rek daal di yem ci benn pàcc dañuy laal fu nekk nee naa ko laal fu nekk nag indi leen beneen artiste bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci ci mim réew xale yi ko bëgg jeunesse bi ko bëgg mag ndaw góor jigéen njagamaar wuju ba jar kum ci munti doon Ouzin Keita lay doon Ouzin Keita EDB ci la nice ak Adji Mass Gueye Ouzin nuyu la asalaamaaleykum ginnaaw yàlla moo jëloon si yonent bi sant sama ñaari sant waa àdduna di sant waa Sénégal di sant kilifa diine kilifa aada di wax sëñ Bamba euh, bu ñu jógee màgg gi ay njaboot yaa ngi fi yàgg te wér njaboot sëñ Bakku yaa ngi fi yàgg te euh, njaboot maam Alaaji Maag yaa fi yàgg te wér njaboot euh, Sénaal Maamu Laay yaa ngi fi yàgg te yaa ngi fi jàmm yàgg daal si Sénégal di di la nuyu nuyu sama sœur sama sœur macha allah di nuyu te fi ma fekk sama xarit amee sa dool borom pause yi borom piniki manikiri macha allah lépp si biir fu mu toll fii daal mooy dox daje dëggal li lépp ngi ci biir dégg ngeen loolu dox daje ah, waxoon naa leen na naay saa bu ñu saajee rek fukki penceeg ñaari dina yëngu jaaju ko ma doo fen yëngu waaye mënut a ñàkk faaw ma daal di wodoo de teg sa daal di réer ci tusi ñu may géex aca ci noonu nee naa ko ban may géex noonu rek ci laa dajeek ki nga xamante ni moo di Ousin Ousin EDB TV lañ wax ak na naay sa amet ñu daal di ñëw ci moom ñu daal di jox ko maa jox ko leen mu wax léegi jox ma ma daal di wax jottali ko nga daal di ñëw intervenir ci intervenir bu am solo Ouzin Kay Ouzin Keita lan ngay wax ci li nga xamante ni moo dina nice émission bu neex bi xew ci jamono mbir mbir mi bi sàjj bi yëngal gësam bi sàlla ngeen ngeen daat curuxu curuxu xale yi bëgg ko chaque samedi soir ma koy nga xam ne moo di EDB loo wax ci la nice ak Adji Mass Gueye daa war a nice daa war a rafet dëggali na nice gi na nga koy dëpp def ko na waaw na nice gi bis nga tey dama koy pét def ko na pétube na pétube waaw na wàcc na ma ni mbàkk ngete dëggali xoolal tey dina ma ni supp pusa tey dina man ni ba tëkkatama ba bootee nit di uh, war a wokkatu. waaye tey dina mel ni mbaxalu poste kenn dootul tissi kenn dootul saje te amee tey na naaj bi nu muy mel. <laughs> naaj kay moom Ousseyn ñëw rek xamatuma si dara. <laughs> waa kon Ousseyn lan nga wax ci na naaj na na biir a biir. na mag bi. ah. Oh! Ousmane Diagne dégg naa turam. macha allah sama promoteur bi nga xam naa kaka kaa macha moom télé bi dégg naa faj bu mu kaa cay dégg naa xeebu mankaan xeebu kunkaan xeebu kunkunkun dégg naa xeebu kenn dégg naa masal def kat lu baax la du olof Ndiaye nee na nit da def loo xam ne da nga koy mën boo tëlee mën a da kaa mën di ko def bu dus boo dara baax Ousmane Diagne kenn doo sama waaj gaaw na jox ma audience ma ñëw ñu waaj ñu ko pëntaas yëpp foofu wàcc dégg ngeen loolu dégg ngeen loolu lépp ci la nice lay xewee nee naa ko ak fii rek lay amee nekk ci li nga xamante ni moo di EDB Ouzin tay ah, nee naa ko bu ñëwee ci nga xamante ni nee naa ko sa doomu nday sa xarit moo di Ameth kenn dootu ko présenté ci si jumaxu fi nga xamante ni moom moo di Nord Foire mun ne ngeen ko nag hmm, toog boof ci xale yi bëgg ko jox ko bopp nag rawatina xale yi nga xamante ne dox ci tendance rawatina xale yi fashion yi waaye rawatina xale yi nga xamante ni ñoo bëgg lu baax di dox toujours tubalikala ci la classe Ameth sama waa la nga mën a wax ci moom waaw ah, macha allah day sama nit xam nga euh, xam dama gën kaa jàpp. xam nga xam nga ko xam Ouzin Keita baax na tooba dafa bëri histoire naat <laughs> non dama pànk wante amet boo ñëwee boo indee pànk yënga si àdduna doo ko doo ko am boo ñëwee xam lu nga faje ay reetaan <laughs> dëgg la euh, kaf reetaan xam nga tam yenn saa yi mun nga indi pànk indi péttu bi indi nangam boo ñëwee day indi reetaan mu nekk ni ku baax ku gëm boppam <laughs> man du ànd ku gëm boppam man du ma ànd ak gëm na dama gëm sama bopp xam li ma bëgg xam li ma lépp neex na neex na lépp mën na am kaf neex wante nga gëm sa bopp e koo fekk muy nga yaaka danga naan si àdduna yaaka yaaka daak xam nga loolu gëm sa bopp la man tey ñuy téye mi ko yaakaar maa leen dàkk li ñuy def waaw samay daal fu mu toll nii boo ko doxandoo boo ko sondoo dox na na na benn daal bi tout moment benn daal bi 10 kilos lay lay <laughs> dama ah. ku ci nekk sëy sil Ousseynou Nice ci dàll yi fan nga génn caméraman jëlal ma dàll yi dàll yaa ngi noonu ay mool 40 defe naa ni la laal. bu daal de moro <laughs> euh, def ay yéeli cuuraay bant. waaw maa ko def ah. yéeli cuuraay bant. Ah, dugal ci man nag Ousseynou émission fii la yem. aji ma atu naaw sa kaw. wuy ma dimbali ma. ah aji benn yoon. Ah. waaw ku koy corote. ODB TV moo koy corote. Ousmane Diagne. Ah. kenn ba ko. Ah. jannaar. jannaar. maam Seydou Ibrahima Fall. mooy sa maam. kenn demul ba ko. moo ñaaw. jëm Touba. bëgg sëñ Fallu. bëgg sëñ Touba. acca mi ngi noonu nee naa ko lu neex nee naa ko ci ko li duf ci nag bi yëpp xajul ci nga xamante ni saa bu ñu toggee ak noonu laay jox ki nga xamante moo di amee timin dalaloon nee ko mu daal nuyu ay nitam am di jàmmam soppeem xaritam clientèle am ko ñoo ñu daal jox Ouzin après ma daal di ah l' émission tire à sa fin xam naa ne samedi prochain na yëngu dina neex to widen sala kirji dar kala curuku curuku akaji mas gay na nice EDB TV <laughs> maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Ouzin Keïta sama xarit. <laughs> sama doomu ndey daaji nga ma waaw waaw mel di daw sol dàll mul kaaram benn bu di nuyu samay clients di nuyu samay samay élèves nuyu ñoom ñëpp. xam di nuyu samay cliente di nuyu ñëpp di nuyu Ouzin sama doomu ndey sama nit la mooy sama Wally Seck moo sama Youssou Ndour dëgg nii de waaw fu ne laa koy wax dëgg la ni ku la yëg sonal la daf maa yëg moo tax dëgg la da ngaa billaay walaay taala koy ñaanal rek yeneen muy dem Bercy ñu ànd su jàppee jàpp na du bàyyi de. billaay nit góor la ñu ngi nii toog sama nit la xam nga temps bi xat na mënoon naa bañ a ñëw waaye nga def bàyyi lépp ñëw maa ngi koy sant di ko gërëm yeneen ànd bay dem beesi man moom. beesi fees del. waaw waaw xol sedd amiin xol sedd naa ci noonu Ouzin ndeysaan dama la daal di bàyyi rek nga yow tamit ngay tàggu say nit say fan say xarit say am di jàmm na ne nag à réew mi la bëgg askan wi la bëgg xale yi la bëgg mag ndaw góor jigéen njagamaar wujur wajar ku ci mun ti doon ñëpp la bëgg ñëpp la sentir Ouzin looy tàggatoo la fin maa ngi nuyu ñëpp di la wax Ouzin Keita euh, di préparer sama rasement anniversaire lay préparer nii ma préparer rasement anniversaire xam ne àddina tukki àddina ma. soo koy defee gën a tedd gàncax gàncax a lancement bi du ma ko wax guuf ma kay defe na surprise lay doon. waaw ndax olof Ndiaye ne ku ñëpp xam du mu sa àgg. dëgg la kenn du ma ci ngoom di yee si ngoom. dëgg dëgg tamit mënut a àndal woo ko tata ba day guus ndax ten du ma ndaa. waaw tend morom Potonda kuy jaawale tena Potonda. déggal lii waaw. dégg ngeen loolu tend morom Potonda boo xoolee noonu rek nga xamante ni tubaarikàlla nee naa ko mi ngi ci milieu bi macha allah waaye mi ngi innové nag jëm de l'avant acca ci noonu rek nee naa ko di jaajëfalati bu baax a baax a baax samay nit samay xarit samay am di jàmm waaye di jaajëfal. bu baax a baax. <laughs> waaye di jaaj jaajëfalaat waaye di jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi ñu doon toog di ñu doon seetaan tout à l'heure à travers EDB TV nee na ko moo mujjee ñëw gën a xew gën a rimbi rimbi gën a sàjj xale yi gën ko bëgg gën ko jox bopp nee naa ko émission bees bi la nag bu neex bi xew ci jamono mu di nga xam te ne moo te saa bu ma nee Nanays mooy Nanays si xol yi Nanays si xel yi Nanays si jikko yi Nanays si jëmukaay yi waaye Nanays si lépp aca Nanays loon tey nee naa ko si samedi inchallah prochaine ci yi nga xamante ni moo ci yeneen ak yeneen yeneen ndax fàcc fàcc ci laal tubaarikàlla pàcc yëpp nañ ni laal nee doon bàyyi fenn peace and